di ñëw nag teew ci sa kanam ci tànku président de la république son excellence Macky sàll mu yebal leen ci bis bii. ni mu ci daan yebale. ni mu leen ci daan yebale. saa su yegsee. saa su bis bi yegsee. ñu ñëw ñu ñëw. indi cantam. indi ab nuyoom ak ziaram ak cantam. ak feddali na colère gu rëy gi nga xam ni yàlla ko boole ak yow xam nga mu xam. kon boog. bis bi bisub ziar la. nee ni mu ko waxee léegi sëñ Amadou Maxtaar. diggante président de la république ak sëriñ Mountakha Mbacké diggante président de la république ak Daaru Khoudoos nee na xam na ni bu dul woon calendrier bu chargé da koy jar dikk teew fii sa kanam ngeen bokk ak moom bis bi ndax yéen a commencé bokk xat-xati jamono yooyu nag moo tax mu yebal nu ñun ñii ñu ñëw andil ko sak sàkku seet ñaan waaye xam na ni moom waxtu ne yaa ngi koy ñaanal. waaye nee na mi ngi sàkku rek nga yokk ñaan gi ndax soxla na ko lool gannaaw bii mu la yaaree ba noppi ñaanal la yow tam nga yàgg ci kanamu njaboot gi ci wér nee na kàddu yooyu daal ci gàttal mooy kàddu yi nga xam ne moom la président yeble woon ni su ndikkee na ko yëkkati sa kanam. nee na xolam sedd na guyu mi ngi sant bu baax itam ci teew gi ngeen fi teew tey te loolu ni nga ko waxee njëkkul tey nee na président de la république nag moom. fekk na ko fu ne ba mu koy xam mu jaxasoog moom booba président directeur u Petrosen la doonoon waaye nee na loola cofeel googa ak jaxasoo googa dafa gën a yokkoo ci magam wala ay magam sëriñ Mbacke Mouhamed ak sëriñ Abdul Fattah nee na bi ko sëriñ Cheikh Mati lay daan seet si ca Ndakaaru nee na président de la république moo fa daan njëkk nee na diggam ak kër gi nag moom euh, mënu cee wax dara ndax mooy kër gi ndax li ko dugal ci yoonu murit boole ko ak kilifa yi ci magam woy juram léppam sëriñ Mbàkke Mohamed ci la jóge nee na kon nag bu ngeen teewee fii ànd nii ngeen ànde ñëw ci bis bu tedd bii nga xam ne mooy bis bi gën sëriñ tubaa ci ay bisam te sëriñ tubaa waxoon it ne képp koo xam ne bu bis bi jotee euh, sëñ Modou Moussa waxoon ne bis bi bu jotee képp koo xam ne ñëw nga fi te nekke fi ni nga xam ne noonu lañ ko santaane bu bët setee set nga wecc ci bàkkaar sëriñ Modou Moussa daana waxit ne soxla su jar màggalu ñaar fukki fan itam xarit fekk la ci réew mi te teewoo fi nee na loolu soxla soo suñu borom sakku ko yitte ju toll noonu suñu borom ko kon nag bi ngeen xamee loolu ñëw teewal fi président ne ngeen ko jottalil ay cantam ak i ngërëmam ci président teg di ko xamal ne bis bi moom bisama kon gërëm na ko bu baax sant na ko bu baax mi ngi koy ñaanal itam jamono ju nekk. ndax diggam ak moom tàmbaliwu tey ba mu nekkee directeur u la sëriñ bi neen sant na leen baax gërëm na leen baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ne ndawam ñëw na fi démb te ay ndawam du fi jóg benn yoon kon moom itam mi ngi koy sant bu baax di ko gërëm abonné leen abonné leen abonné leen abonné leen birajuman leen yu barizul muntaximan barizaman abonné